waaw man maa ngi tudd Ansou Ndiaye maa nekk président des associations des parents d'élèves de école Babul Islah waaw loolu mën nañ ci tontu école bi mën nañu wax bi mooy deuxième année bi mooy deuxième année bi ñu ko soseeg léegi mais dafa mel ni lu am dix ans parce que qualité njàngale bi fi nekk moo tax macha allah. Cheikh nekk xale boo xam ne tam xale la dëkk ci koñ bi am initiative bi créé fi école boo xam ne ñëpp dañoo daw utal ko non seulement moom référence la ba pare ñëw taxawal lu mel nii. moo tax ñu sawar fa yóbbu suñ doom te bu ñu fa yóbbee suñ doom bi aussi gis nañ njariñ bi vraiment xale yaa ngi jàng ñu ngi leen di yar ñu ngi leen di tàggat ci lu bëri daal vraiment parents yi fi indi seen doom yëpp réccu wuñu ko daal macha allah. waaw loolu dinañ ci sawar tontu loolu defe naa jàllale nañ message bi sànq autorités yi dañuy xaar ci ñoom ñu ñëw jàppale ñu parce que lii nii yombul dëkk ci koñ ñu tabax fa école boo xam ne xale bi mun na fa jàngee depuis préscolaire ba terminal loolu yombul te buñ ko yàlla defalee kon dañuy woo autorités yi nga xam ne ñoo dëkk fii ci gox bi ñu ñëw def seen loxo ci école bi yaa ngi dégg pour école bi mën a yegg fi ñu bëgg parce que bu dee ñun rek suñu moyen mënu ko def donc faw ñu jàppale ñu pour école bi fi ñu ko bëgg yóbbu mu dem fa macha allah. on leen di ñaan nii comme exemple Abdoulaye Pouce Tassa. lii dugg ñu ko moom sànni ko si àll bi wér nañ ñu taxawal bu xëyee tabax école fekk moo ngi dem di tux di naan mooy yow mag bu toog fii mooy yow mag bu toog fii sa waaju dala bawul woon nga jàng sa diine ba xam li sa ngëm sa ngëm ay melo lu jarul ba tey di nga mel ni sa ndaw te loo xamoon ni yaa ngi gëlam dama tege woon dama tege Bye. الشيطان الرجيم فذكر koy sas nii la démarré woon je me seen première fête directeur bi dafa taxaw di ñaax parents yi bëgg nañ ñu dem ba am bac arabe bëgg nañ ñu am classe terminale et cetera nii ñu ko defee ci mbébét noonu la ko parents yi defee woon ba école boobu màgg ba seen seen élève jël premier au niveau mondial ci àdduna laa wax te xam ni arabe yaa nga fa égyptien yaa nga fa marocain yaa nga fa ab doomu Sénégal raw leen ci njàng alxuraan daaw ñu ngi ko doon sargal fële ca ville de Pikine loolu lu jara sant la kon loolu jommul école bii seeni doom nekk beneen bi oustaz euh, li ma gën a marqué mooy la mobilisation des paran su ma nee la mobilisation des parents mooy yaay yi boo xoolee jotaay bi jigéen ñi fépp boo xoolee ñu ne la parents d'élèves yi ñëw nañ boo xoolee jigéen ñee fépp kon jigéen ñi bu Sénégal defaroo rek ñoom lu dëkk bi mel rek jigéen ñi gàcce ngaalaama jigéen ñi parce que jàngale naa ci zone bi école Abdoulaye Diop lu yàgg gis naa man yor naa ay élèves sama classe daana weesu téeméeri élèves te jotaay bi sax du ñàkk ne samay anciens élèves a nit n'est-ce école day ubbi ba tëj kiy ñëw di xool di jàngal doomam di xool fu doomam jàng si na wala jàng siwul xool doomam am na kay wala amul kay di xool doomam feebar na wala feebarul jigéen ñi rek la ñun jàngalekat yi jigéen ñi rek la gis yaay yi rek lañuy ñuy gis kon yaay yi tàccuwaat leen seen bopp. ñu joxe fi beneen message message boo xam ne ci internet la nee nañ am nañ lu ci baax am nañ lu ci bon. est-ce que xam ngeen ni li ci bon ñu ngi ci parce que ku nekk bu la lu bon taxee jóg da xool nit ñi la ñu gën a bëgg nga dem ca te jii boo bëggee xam Seydina Muhammad kañ la judd fu mu juddoo mën ngaa toog sa kër ci internet nga xam ko am na ñuy xam yonent bi te génn ñu seen biir néeg ci internet lañ koy xamee kon lu baax a ngi ci boo xamee nu ñuy jàppee ni ñuy jullee te jànguloo alxuraan jàngloo arab demoo ci benn daara demoo ci benn école boo amee internet sa biir boo ca duggee di nga xam nu ñuy jàppee ano liy faratee njàpp ano liy faratee jur kon lépp lépp waaw samay ancien élèves gi noonu <laughs> ni ngay def si mënu leen tudd maa ngi leen di gërëm di leen sant donc mënu ma woon bañ a lancer message bi di wax ni euh, le modérateur l'a ainsi dit l'école il y a que trois acteurs l'apprenant l'enseignant le parent d'élève solo pour nga def ko mooy nga taxawu ko mais taxawu bi ci njëkk mooy lañ lañ ko jàngal ca école ba bu ñëwee nga nga taxawu ko ci kër gi pour mu am résultat loolu benn la ñaareel bi noonu ngay dimbalee eh, ki nga xam ne mooy jàngale ñaareel bi mooy nga def say say moyen ba moyen yooyu mu mën a nekk loo xam ne lu yokk la bu fekkee ne dañoo amoon ñaari classe déwén nga fexe ba mu yokk ba ba mu nekk benn institut bu gën a mag parce que loolu daal laay dim laay wax ni parents d'élèves yëpp war ñu mën a jàpp ci école bi mu gën a yokk bu ko defee parce que ku ci nekk yaa ngi am yéene am benn njaboot ñaar ñett boo fi dugalee sa ñaari njaboot dëwoon wala dëwoon jéeg ñaan nga yàlla sa yeneen njaboot ñëw fi kon war naa yokk pour sa njaboot yooyu mën a xaj ko loolu non autorité yi moom li ñu leen di dénk mooy chaque jour képp ku la euh, créer école mooy yokkal na la sa Euh, sa pénc jaar nga ci école képp koo xam ne jaar nga ci daara xam nga li ñuy daj bi xale yi di xamal dara sonn nañu ndax ñun ci suñu kër yi rek suñu doom yi pour yar leen problème bu rëy a rëy la ñoom nag ñuy def xam-xam di yar di jubbanti kon ñiy jar nañoo jaajëfal kon képp jàngalekat boo xam ne yaa ngi fii rek di jàngalekat lii sa kado la jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen def ah, man la oustaz Cheikh Tidiane Ndoye di directeur école franco arabe Babul Islah ñu ngi nuyu ñu ñuy diglu ñëpp ak ñu ñuy seetaan di leen ziar. xam naa nag li nu bëgg a wax rek jëmale ko ci école Babul Islah ñii nu àndal ñenn la ci ay jàngalekat école la boo xam ne ren la am deux ans année bu njëkk ba Covid bi bii mooy deuxième année waaye ñu ngi sant yàlla di ci am ay résultats yoo xamante ni yu satisfaction la bi ci njëkk mooy ku ne xam na ni franco arab dafa jafe ndax da ngay jàng arab jàng français français bi ñuy jàng ci école publique yi moom la ñuy jàng fii. pilis di jàng arab bu ko defee kon niveau bi day dëgër ba pare niveau bi day diis yàlla mi ngi ñuy suturaal nag li ñu ci gën a am yéene rek mooy lu yokk côté école bi ndax ku ne xam na ni tey jii nii école bi xaw na xat classe yi xaw na xat xaw na manqué kon ñu ngi lancé ñëpp ku man ku ñu mën a tabaxal benn salle de classe wala ñaari salle de classe mu dimbalee ñu ko am nañ terrain bu taqaloog euh, école bi bu ko defee lool itam ñu lëg leen koy ñaan yéen ñëpp di remercier jàngale kat yi ñii ñëpp macha allah ay borom yi xam-xam lañ borom yi licencié ñoroom yi bac jàngale ci état bi ñi am diplôme professionnel def fi effort yoo xamante ni wax dëgg yàlla yooyu satisfaction la kon ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm tam parents d'élèves yëpp ndax ki jox li mu gën a soxla muy doomam li ko gën a cher le muy dee moom mu yëkkati ko teg ko kim la lim la jox lu rëy la loolu mu ñu jox nag ni mu rëyee moo tax ñun itam ñu ciy def suñu kemtalaay kartan kon ñu ngi tàllalaat ñëpp loxo ñu jàppale ñu ci nemmeeku xale yi parce que njàng jàngalekat yee ko séq ak élèves yi waaye tam ak parents yi kon nag ñu ngi ñaan ñëpp ñu jàppale ñu. waaw wax dëgg yàlla bu dee ci côté mairie moom amaguñu benn situation mais bu dee ci côté état comme école bi dafa am ay këyit ñu watal ko am ay këyit yàlla dogal na ci Covid bi joxoon nañ ñu benn situation boobu ñu doon jox école yi boobu moom mos nañ koo jot jàngalekat yi yëpp bi ko jotee teg nañ ko ci seen kanam ni leen temps la kenn ku ci nekk lim ci war a am mu am ko loolu de jot nañ ko bu paasee loolu nag suñu ñaar dërëm ak suñu ñetti dërëm ak ak yenn parents yi xam ne dañuy def bonne volonté ndax am na parents yoo xam ne xëy nañ jëndal ñu machine de trente trois cent cinquante mille ñenn ñi ñu jàppale barki démb bi ñu waxee suñ programme bi ci jour bu njëkk bi ñu ko jëkkee wax benn parent cinquante mille la ñu jox jour boobu dafa taw cinquante mille yooyu boo demee ci école ba moom laa jënde bâche kon kooka mi ngi def participation kon loolu wax dëgg yàlla lañ am participation bi daal ci parents d'élèves lay jóge ak bon volonté yi waaye ñu ngi sant yàlla daal di sant ñëpp di sant jàngalekat yi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may karte nag man man ba li jàngalekat yi yéene ci njaboot gi yéene ko ci diine ji yéene ko ci lislaam bi yàlla na yàlla mottali ko ci barke Nabi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf ñu ngi remercier ñëpp